ma ngi leen di nuyu yeen waa Modit info di nuyu ñi ngeen àndal ñëpp ñëw fii tey man seet si ma man la soxna Combi Cissé responsable politique APR di yëngu nag ci APR di ci ànd ak soxna maam xarim Cheikh Moutala tey bu rëy laa ci am ba ma xëyee ba tey dama solo toog di mobiliser ñi ma am di xaar sama leader ndax ñun jigéen ñi tay ñun ñoko ko tax mu ñew kon tay yeg yeg bu mag la am ci 8 mars bi di ko commencé tey nag ba suba ndax ñun jigeen yi bis bi rek lañ am sama yaay mo nekkon responsable PDS ci département bi man ma joggé ci dem APR ba ma demee APR yi deugal sama bop ba tay ji ma ànd soxna mam xarim Cheikh Moutala dëggal sama bop ci politique ndax bëgg gu bëgg président Macky Sall bëgg gi nak li ngeen commencé rek ci lay commencé moy am lu ma naqari ñu né président Macky Sall wa Touba bëggu ñuko ma dajalé 37 leader yu nekkeen PDS jëlé ko yobbu ko APR deug sama bop ba tax tay ji lañu amone bu ñëk moy 6000 voix yañ fa daan am tay 12000 voix et quelques yi ñun dañ ci bokk ak sama njiit nak moy Mam Xarim Cheikh Moutala lu tax ñu am ko tay ji Touba ñun amuñu défaite ñun Touba amuñu defet de c'est parce que maam xaree doon politique lii fi président Macky Sall am grâce à soxna maam seex Cheikh Moutala ndax moo fi politique moom kese moo fi politique campagnal fi euh, président Macky Sall kon bu ñu fi amee douze mille et quelque ay voix kon grâce soxna maam xarit amuñu defet dégg ko ma ne la ñun amuñu defet man dama la ko répéter de ne la ñun amuñu benn defet dañoo fekkoon ci parti bi ñu am six mille voix ñu am fi douse mille et quelque voix kon donc ñun amuñu défaite te it ñun rekk ñoo campagne dëkk nag bu fekkee kenn rek a campagne lam fa am bu yokkoo plus de six mille et quelque voix kon kooko jàmbaar la muy maam Xadim Cheikh Moutala ñun fii ci Touba boo jàngee ci Touba rek nga xam ne jox nañ gëdd jigéen c'est parce que soxna jaar Jaara Buso moo tax ñu jox ko gëdd moo tax lu ñu am lii ñu am lépp ci Touba. ñun de dara jigéen duñ ko duñ ko wax kenn parce que liñ ci war a am lépp ñu ngi ko ci am ndax soxna jaara ku jaar ci soxna jaara nag ba ñëw ci ñun rek da ngay daal di sant yàlla xam na jox nañ cër jigéen ndax cër bii ñu ko jox ba mu am li mu am ci Touba. waa loolu moom maa ngi koy xaar xaar bi ma koy xaaree mooy président xam ne am na ñu koy liggéeyal tuubaa am na ñoo xam ne nii APR rek leen ñor Touba. ku ci sema sama sama serigne sama leader muy soxna Mam kharim cheikh Mutala mom APR rek ko ñor ak président kon ñu ngi yaaka ci Touba président andi fi ay ndombal tank yu mu takkal jigen ñi ñu dekk Touba ak goor ñi dekk Touba. waaw mi ngi koy doxal kay ndax election yi passé sama leader nek tedd liste bi mu Mam kharim cheikh Mutala déggoo ma ne lii ñu fi am maam xade tax ñu am ko fi ben leader newul ci terrain bi kudul mam khadim Cheikh Moutala 6000 va et quelque ñu doli ci 6000 yi ñu amone muy 12000 et quelque va grâce à soxna mam Xadim kon jigéen jité jiite loolu. deug la loolu mom du foto kenn foto ñu yore yëf la parce que dañ ne parité parité mom buñ koy def ñun jigéen ñi war nañ buñ duggalé ñaari jigéen duggal ñaari góor waye dama defé ne buñ koy defaat dañ defaat neneen nu ni amoon. man de président du ko wax dara. parce que lépp lu mu war a jigéen ñi defal na leen ko yaa ngi dégg lu mu war a jigéen ñi rek defal nañu ko nun am na lu nu sa am ci benn président tey jigéen doo gis na nga yor ay millions di liggéey grâce en président mu dugal fi DER bi kon donc nun leen ci am ci jigéen ñi président defal ñu ko defalu ko kenn yaa ngi coupé sama yëf de waaw <laughs> lu tax ma di ko rey ngoram fulam faydam xamna na kujur, Bàmba ko jur cheikh mutala ko jur mu wëlbatiku tak ndigem di liggey di daan dolem di jël ay employeem ñu diko ko mu ci dimbele nit ñi ci Touba di dimbele jigeen ñi di dimbele goor ñi te man dama bëgg nit ko xamne ni day engagé wu motax mu nekk sama référence lepp lu may def rek dama ko ci jital c'est parce que moy sama référence. na ñu gën a góorgóorlu rek nak dem war xam nga jigen mom ci war rek lañ ko mas a gor góorgóorlu roy ñi nga xamné ne taxa nek Touba surtout ñun ñu nek Touba c'est parce que ku fi nek rek war nga tak sa gor góorgóorlu liggéey nek jambar ba lu lu fekk rek lu la di dimbalee rek fekk la ca. lu ma mën ci japp ci yéen danaa ko def c'est parce que li ngeen di def c'est très importance dugg ci biir kër yi di xalaat nit ñi lu bëgg ak lu ñu bëgg wax parce que nit nga bëgg ci télé di wax. te télé yi jafe ci ñoom yéen ngeen ñëw ba suñu kër yi dañu introsé dañu wax ak ñun kon donc loolu yëpp dañ leen ci sant te di leen gërëm te du ma man ci nag jotal seen liggéey lu ma man ci dimbali leen ci seen liggéey ndegam neex na yàlla danaa ko def